aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi irrahmaani rahim mbokk yi yéen a ngi ànd ak moxtaar jum ñu gën koo xam ci njaga jum di taalibe sëriñ njaga sile imaamu daaru salaam niñ ko baaxoo di ànd ak yéen ci lenn ci xaside yi sëriñ bi tey ñu ngi ànd ak waa daayira miftaaxu nasri lycée Blaise Diagne ak lycée Kennedy ñu nekk membre ca daayira boobu su ko defee dañuy ànd ak yéen tey ci xasida gi di wakaana xaqan eh, liñ ciy jéem a wax nag muy baatu arab yi ñuy jéem a jaar ci wolof waxuñu ne dëgg-dëgg sëriñ bi loolu la ci jublu waaye dañuy jariñanteeg suñu mbokk taalibe yi rek ngir ñu gën a teewlu xasida yi buñ koy jàng ak gën ci am luñ ci mën a jariñoo moo waral ñu def ci ak góorgóorlu tuuti di ko jéem a nab eh, nabi di ko jéem a wax ci làkk wolof waaye loolu mooy njariñanteeg ak soññanteeg mbokk taalibe yi rek dinañ ci ñëw tamit ci wàllu liñ ci mën a jariñanteeg ci wàllu lanwaa lanwaar yi ak lasraar yi nga xam ne dinañ ci liñ ci xam ci néewu xam-xam man koo bokk ak mbokk taalibe yi su ko defee kon dañuy ñëw tey ci xaside gi muy wakaana xaqan sëriñ bi nag kimtaanam mooy mbindam kon ndax wax na ko karaamati xatu yat yi waxoon na tamit ne sama xasida ñoo gën a kawe xasida mboolem ñu tedd ñi xas xasidati faaxat xasaayidal kiraam wax na ne tamit xasidaam yi buñ ci saxoo di ko jàng danañ ci am lu kawe sunu njort danañ ci am lépp luñ bëgg danañ ko ci am euh, du jar sax ngay dugg xalwaak yooyu booy saxoo di jàng ci xasida yi rek ànd ak làpp loo bëgg am rek mën nga ko ci amee kon luñ ci wax rek bàyyi nañ ci lu baree baree baree bari day mel ni géej rek nga dugal puso euh, boo ko yëkkatee la cay toq rek loolu rek lañ ca mën a wax te ñun daanaka dañ koy tuxal rek ci yenn mbokk taalibe yi magi taalibe yi ñu ko jëlee ci la ñuy ñëwee rek tuxalaat ndax sëriñ bi xasidaa mi am na ci loo xam ne euh, ci lawxul maxfuus la ko jëlee am na loo xam ne ci umal kitaab am na loo xam ne moom digganteem ak borom rek boromam rek ñoo ko xam moo waral ñun lañ cee xam tuuti lay doon ñu mën koo soññante rek ngir ko mën koy jàppalante kon nañ ko def mu nekk liggéeyal sëriñ bi yàlla nañ koo sëriñ bi nangul euh, ndax waxoon na ne waqadi xawaaij alladina daamu fi xidmati wa hab lahum maaraamu kon yàlla nañ dugg foofu rek kon dañuy njëkk a tàmbali ci présente xasida gi bala ñuy ñëw ci euh, firi bi jéem a koo firi ci introduction bi présentation xaside bi dinañ gis ne xaside bi am na téeméeri bayit ak juróom fukk ak ñaar euh, muy 152 abiyat am na ko téeméeri bayit ak juróom fukk ak ñaar euh, tey nag lañ tàmbali ñëw ci xaside gi tey mooy bisu lan tey mooy bisu dibéer euh, juróom-ñaar ci juróom-ñetti fan ci muharram ci 1441 ci atub gàddaay gi tolloog tamit ci weeru nasaraan dimanche 8 Euh, septembre dimanche 8 septembre 2019 kon weeru wolof ak weeru nasaraan ñoo tolloo ci juróom-ñetti fan yi tey fii ci Touba lañuy ñuy fas yéene ànd ak yéen xasida gi mu doon xasida koo xam ne nag xasida xéewal la xasida mbégte la te buñ ci duggee ci jéem jéem a wax li nga xam ne moom la ñu gis ci xasida gi danañ ci gën a xam ne xasida mbégte la xasida xéewal la xasida ndimbal la kon ku koy jàng rek say bunt dana gën a ubbeeku da nga am ay xéewal euh, kon xasida gi bi mu làmboo téeméeri bayit ak juróom fukk ak ñaar muy 152 bayit abiyaat gis nañ ni xasida gi fan la ko sëriñ bi taalifee mi ngi ko taalifee gànnaar ci gëstu gu ñu gëstu am na ñenn ñoo sax xomaag la ko taalifee lu tax sëriñ bi euh, taalif ko wala lu tax mu siiw dafa am ay jafe-jafe yu naar yi amoon kenn ci ñoom koo xam ne ko yàlla baaxal la mu tëdd ba guddi gént yàlla tegtal ko sëriñ bi bi mu ko tegtalee sëriñ bi nag kooku wax ko aw nitam mu ànd ak ñoom ñu dem ci sëriñ bi bi ñu yegsee tiis ko seen euh, insécurité bu nu doon jànkonteel ak ay tiis ak ay naqar yu daloon seen kaw bi ñu ko waxee ba yeggal rek sëriñ bi daal di dugg génn jox leen xasida gi mu nekk mbind mu tooy moo xam ne ñoom mënuñoo wax ne jataay bii ñu toog euh, sëriñ bi mën na ko fee bind ba mu yegg jox leen ko waaye tamit li leen ci yéemaat muy mbind mi mbind mu tooy la te bu nu xoolee xaside gi sëriñ bi mi ngi ko tuddee wa kaana xaqan alayna nasrul muminin muy aayab alquran boo xam ne boo demee ci suuratu Ruum danga ko fekk aaya 46 su ma jumul su ko defee loolu li muy tekki mooy wa nekk na xaqan di yell alay naa ci ñun ñun yàlla maanaam nekkal na di warlul yi muminin dimbali jullit ñi dimbali ñu gëm ñi maanaam yàlla dara waru ko waaye nee na nekk na di ñu loo xam ne ñoo ko warlool suñu bopp ñun moom yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala ñu dimbali way gëm ñi kon yàlla moo warlool loolu donte dara waru ko kon bu demee ba warlool dala rek kon loolu xéewal la ci ñu gëm ñi ndimbal la ci ñi gëm ñi loolu sëriñ bi taalifee xasida gi ngir dagaan suñ borom mu nangul lii nga xam ne ñii moom lañuy jàmbat te ñoom tamit gis nañ ne loolu ñu doon jàmbat suñ borom saafaraal na leen ko kon nga xam ne kon boo koy jàng am ci ay jafe-jafe wala am ay tiis suñu borom dina la gaaw a euh, dimbali ci sa jafe-jafe yooyu ak sa tiis yooyu léegi nag bu ñu duggee ci biir xaside gi xool ni ko sëriñ bi taalifee kon nee naa la bayit yi xaraf xaraf lay sëñ bi di ko jël di ko waye xasida gi muy wakaana xaqan alaynaa nasrul muminin wakaana xaqan alaynaa nasrul muminin nag sëñ bi taalif na ko ñetti yoon ci biir xasida gi sëriñ bi taalif na ko ñetti yoon su ko defee ñetti yoon yooyu da da gis ne waaw wakaana xaqan waaw la tàmbalee moo tax sëriñ bi mu tàmbalee wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil muminina wa sakur foofu waaw la ko tàmbalee muy ñuy dem di dem di dem ba ci ñaar fukkeelu bayit ak juróom benn muy vingt sixième meelu bayit vingt sixième muy nafayta iblisa li gayri abada fii shahri daa kulla man yaabuda foofu la wakaan xaqan gu njëkk gi jeexee wakaan xaqan gu njëkk gi foofu la jeexee ci vingt sixième lu bayit mu tàmbaliwaat beneen wakaan xaqan ci euh, vingt-septième lu bayit muy ñaar fukki lu bayit ak juróom-ñaar muy wajji wajji li man qad amanu wa aslamu wa axsanu mox ji la man lam ba ci juróom fukkee lu bayit bi euh, foofu la ñaareelu wakaan xaqan bi jeexee juróom fukkee lu bayit bi mooy ban na jeyta man bi yataallaqu ma min ash-shayaatini fa sukur yasmaa su ko defee ñetteelu yoone wakaana xaqan bi alay naa nasrul muminin bi nga xam ne ñetti yoon la ko sëriñ bi taalifee mi ngi ko tàmbalee ci juróom fukkeelu bayit ak benn muy cinquante cinquante iñeem euh, bi bayiti bayit bi foofu la sëñ bi tàmbalee euh, ñetteelu wakaana xaqan bi muy wajjahtu shukriya ila rahmaani almaliki rahimi zil azmani ba ci euh, najaaka abduka xadimu abdika mortéjien naylal mun naa muy andika muy 74e bayit bi mu juróom-ñaar fukkeel bayit ak ñeent foofu la wakaana xan bi alay naa nasrul muminin foofu la ko sëriñ bi yamalee ci ci ci ci bayit boobu noonu muy muy xarafi alquran yooyu mu koy taalif foofu la ko yamalee su ko defee lii ñëwaat ba tey ci génn xasida gi la ndax xasida gi sëriñ bi da cee indi ñetti aaya ñetti aaya la ko taalifee wakaana xan gi moom foofu la jeexee si soixante-quatorze soixante-quatorzième yu bay bayit bi maanaam juróom-ñaar fukki bayit ak ñeent bi waaye bu dem bay ñëwaat nag day indiwaat beneen aaya alxuraan muy fastajaaba lahum ba loolu mu ngi suratu al imran mu yàlla nangul na leen seen ñaan ñoom gaay yi baax yooyu doon ñaan lañ doon ñaan sun borom nangul na leen ko sun borom toftalee ko ci biir xasida gi ba tey mu duggaat ci wakaana xan buñ koy durus benn yoon bu yépp dañ koy dugalaale durusaale ko fastajaaba lahum googu nag sëriñ bi indi na ko ñaari yoon ci biir xasida gi mu tàmbalee ci euh, soixante-quinzième lu baytu wakaanaxan bi mu tàmbalee ko ci fastajaaba lahum bu bu yoon wu njëkk bi ndax indi na ko ñaari yoon moom muy faaza lazina saidu bil xayri wa ba aman lam yasadu bi dayri boobu boobu moom foofu faa faagi la indi jeexalee ko euh, lahum xam nga miim la jeexee mu jeexalee ko min nii lahu anfau hamdin wa shakur za xidmatil mustafa al abdi ci 89eemu bayit bi nga xam boo xoolee 75 ak 89eem bi am nga 14 bayit foofu ci diggante boobu bu jëlaat mu jëlaat nag ñaareel yoon bi faaraxtu ci 90eelu bayit bi faaraxtu jumlatam minal mubaaxi liman kafaani baax yi jeexalee ko euh, ci ñaareelu fastajaaba lahum bi muhammadun salla alayhi bisalaam wasilati lahu wali qaadal kalaam foofu la ko jeexee mooy 104 tolloog samat 104 diggante 90 ak 104 boo ko xoolee 14 bayit moo doxaat foofu ci diggante bi xam ne fastajaabu lahum muy ñaareelu aaya alxuraan bi foofu la ko sëriñ bi euh, jeexalee ci biir xasiide gi nga xam ne kon boo xoolee wakaan xaqan ëmb na euh, ñetti euh, ñetti ñetti aaya ëmb na ñetti aaya nga xam ne juróom-benni juróom-benni yit la boole moom juróom-benni xasaayit nga xam ne wakkaan xaqan jëmmi wakkaan xaqan bi wax naa la sëñ bi woy na ko ñetti yoon